saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa Zil Balde may wax ca combat Modou Lo Ama Balde combat royalub Luc Nicolaï ba ñu doon wàcc ci weerub juillet moom Zil Balde ñëw na ca la mu xamle mooy fi nekk nii kenn talatul combat combat bi ñu am mu tere ñoo lekk tere ñoo naan tere ñoo nelaw mooy coronavirus moom coronavirus moo dugg ci réew mi bëgg a def boppam VIP par force ñu ne déetawaay muy xëy di ami combat di ami ndam saa yoo Assane Mbaye diggante Modou Lo ak Ama Baldé nañ ko tegee à côté bile combat ak yeneen ya fi waroon a jaar yépp nañ ko tegee à côté ba li lay jeex la jëlagul yoonu jeex ba léegi mooy xiiroo ŋaayoo bay dox ca diggante arbitre ak CNG le journal ba xam le mooy bile combat boobu mooytuwut bu corona bi jeexee dana am beneen tournir ñoom arbitre yi mbooleem lañ bëggoon a def dañ koo tegandi ca suuf sumboon nañ fi ab point de presse dañ koo mujjee teg ca suuf ñu ngi doon xalaat ab doxu ñaxtu dañ koo mujjee teg ca suuf boo waxee ak président Alioune Sarr mu ne bu jàngoro ji jeexee ma soog a tourné ci muus yeeg moustique yi loolee moo waral ñu njortu ne bu corona jeexee korante dana am ci diggante CNG ak arbitre yi bu ñu jàllee ca mbañi kayre ne moom la journal ba xam le mooy ba léegi nii mu ngi préparé combat ba avorté woon ci digganteem ak Jacob Baldé fomm googee combat ba fomm moom arrangé ko moom Mbagnick Kaïré waaye terewul mu ngi ci ruqam ca Soumbédioune di liggéey la muy liggéey di xaar bés bu rafet lay xaar ndax xam na ni yàgg-yàgg dina jàkkaarloog Jacob Baldé jël na ci ñenn ci membre staffam di làqatoog ñoom di liggéey ak ñoom moom mu ngi préparé bu baax ndax mën naa xëy rek ñu ne moom la mu xam ne mooy Eumeu Sène dafa jaawale woon vitesse ak précipitation gaaw toog yàkkamti moom la Eumeu Sène jaawale léegi kay moom nangu naa ne Modou Lo mooy bête noire Eumeu Sène daan na ñaari yoon loolee xam naa ko nangu naa ko waaye moom Modou it Balla Gaye 2 mooy bête noire ni mu def Eumeu Sène noonee la ko Balla Gaye 2 def te loolee Balla Gaye 2 am ci Modou loolee la Eumeu Sène am ci Balla Gaye 2 waaye boobu combat Eumeu Sène moo jaawale vitesse moo ci doomu jalaw bu ékirikaay baax le journal ba xam le mooy depuis ba ko papi général daanee le 14 juillet 2014 ba léegi ay lampam dañoo nekk kamaj fay diirub juróom benn at kenn déggu ko kenn gisu ko lu dul bi papi général génnee ba wax ci moom ba papi général génnee ci wasaare ba wax la ko neex ci doomu jalaw moom it dafa woowaa wasaare fa séene teggi tuuma la mu xamle mooy dëgg la ba ma jógee ci papi général feebar naa damaa yaakaaroon ne nerf sciatique laa amee woon waaye ay mbir la woon waaye mbooleem li papi général wax ci interview am dara amu ca cinquante mille muy wax ne maa ko ko jox ngir mu jàppale ma ci mystique day wax lu ko neex leneen la mu wax naan damaa jox kuti ma sangoo tey du dëgg ëllëg man doomu jalaw ku ma fekk ma yor kuti lan lañ ma war wax jërë ngeen jëf mbokk yi li ma nekkoon li gën a leen jox dig daje ba ëllëg incha allah jox